presse bi résultat yi ñu jot à l' instant moom la ñu mën a commenté te moom la ñu commenté. dégg voilà xam nga résultat yi ngeen njëkk a jot par exemple mu ne ma par exemple Goudomp Aminata Touré bi muy joxee Goudomp te Goudomp tuuti la ñu ci ci bu mujjee génn mais mais ba démb ba wax min wi ñun ñoo rawoon à Goudomp ñun booba mais léegi rombaan nañ fa am fi ngay ñoom ay 2000 ñu ngi ñu am 1000 fois 1000 am 1000 am ay 900 bokk résultat yaa ngi ko gis bi la ba nii vraiment ñun dañuy mais moment bi Aminata Touré wax elle était de bonne foi pour Goudomp. Sédhiou. Sédhiou mosul woon ñëw gagné. foofu dafa jaay Afrique australe Afrique du Sud ñoo gagné loolu rek la woon. Mhm. mais léegi tout le reste et puis boolewul ay ay ay ay ay Afrique ay Europe ci trente yi mu wax de trente yi Sénégal la sur quarante six il a été très clair alors que boo ci bokkee boo ci yokkee euh, Europe. Amérique ah Afrique mais yow euh, cinquante et quelque je les cinquante cinquante euh, xaw ma ñaata département kon moom li wax bu ñu ko wax waxul mais par contre et c'est triste de le dire j'ai amené des journaux des journaux de propagande et de mensonge. comment ça man lu ma wax day am preuve du kenn. Tribune nous dit que Louga est dans l'escarcelle. Louga est dans l'escarcelle de l'intercoalition Wallou Yewwi. Louga, Saint-Louis, Sédhiou, Guédiawaye, Médina, Tivaouane. Louga, on l'a gagné. C'est vrai que première tendance yi bi ñu joxee ville bi Moustapha Diop était devancé. léegi nga nangul Aminata Touré ne moom bi muy joxe. amul woon toutes les informations nga ñëw bëgg ki toog ki toog. da nga war moom wax toog. ñu ne parce que parce que journal bi amul woon la commission départementale de recensement des votes aussi. bien sûr on est pour faire un débat niveau boo xam ne. waaw dafa dafa yëg Sénégalais yi seetaan. non commencé ko non yow la déglu. non dama ñëw pour wane ay ay dëgg. nga bàyyi ma wax ko boo des ma ñu nit dañ lay relance ñu ngi lay déglu. doo ma relance commencé ku ma je viens de la parole. maître on vous écoute. doo ma relance dama ne je t'avertis. maître solennellement devant les sénégalais. ñëwuma tey pour xuloo ñëwuma pour histoire dama victoire benno bu rëy ñëw di ko leeral fii bu dee dañu bëgg a fàtt pour dama wax ma jox des ma. on vous écoute ma maa ma ma wax. ñu ngi fi wax fi erreur gundoom daa ko may naa ko tey lañ xam ne guddoom on l'a perdu mais tuuti la ñu rawee ci nangu nañ ko mais démb bi Aminata Touré da wax mais je le jure sur le Coran elle était de bonne foi on était ensemble. waaw maa ngi ñëw. Afrique du Nord. bu ma toog xam nga man. vraiment je veux débat pour ñu mën a avancer aussi ñu bàyyi ko pour ñu mën a avancer. nekkuma fi tey daal problème. maître yow la ñuy déglu. quand tu as des idées dañuy bàyyi nga développé ko pas chaque mot ñu doon ñu doon. par exemple Louga ñu bëri foogoon nañu on a pensé qu'on avait perdu vraiment mais xëy na bi ñu demee ba ci ay fajar gi euh, ci ci ay boori minuit lañ lañ xam ne am nañ ko ci lañ ko dugalee ci moo tax am na avant même muy wax elle a elle a été prudente guddoom moom ba bi ñuy wax on nous avait certifié qu'on avait gagné nekkee bu am na résultat yu des et ba mu ñëwee la changé la donne mais Louga par contre. Aminata Touré l'a cité ci liste département yi gagné mais pourquoi un journal se permet malgré l'affirmation péremptoire de madame Aminata Touré selon laquelle moom coalition moo gagné Louga première ville bi njëkk bi de premier département ci fii tribune Louga la c'est une manif c'est une intention en fait de de manipulation ma continuer on nous a parlé de l'intercoalition intercoalition amul toog naa ay euh, juriste de renommée les ces élections n'ont pas connu et le code électoral ne le permet pas, ça n'existe pas, c'est de l'escroquerie politique. Une intercoalition, ça n'existe pas. Il y a la coalition Yéwi d'un côté et la coalition Wallou de l'autre côté. Ces élections ne connaissent pas une intercoalition. Chacune des coalitions avait ses millions. a déposé sa liste ñoom nag bu leen neexee mu am entente tacite seen biir mais ko arrête de nous parler de parler de juristes surtout d'intercoalition. mais mais maître aucun c'est pas vrai ça n'existe pas. ne la wàllu moom moo jiite ci li nga xam ne mooy intercoalition entre Yewwi et wàllu. loolu c'est entre eux entre waa Yewwi. ak waa ne concerne pas. le conseil constitutionnel ça ne concerne pas la direction générale des élections ça ne concerne pas les listes déposées ça ne concerne pas la caution versée may wax foofu lu leen. nga daanelee foofu s'il vous plaît oui. ah. ah waaw nga nga daanelee foofu ñu mën a avancer maître ñu mën a avancer après ñu ñëwaat ci yow. mais doo ma bàyyi ma ñu ñu ñu côté côté ku nekk dafa boo xamante moom ngay jël boo daanee. mais léegi da may wax bu muy commencé ñaata pour ñu ñu mën ko tënk ci loolu. ko tënk ku ci nekk 3 minutes. pour ñu ko teel wax moo gën aussi. waaw waaw ay ci man plaider uma mhm. fii du plaidoyer fa may plaider xam naa ko. mais au moins wane naa une histoire beneen bi ma gis beneen journal euh, beneen journal bind muy wal fajri Benno revendicatoire Yewwi crie au hold-up après mu bind. Barthélemy Dias soxna si mag du fen mais Barthélemy Dias moo njëkk a fen ci élection yi moom moo dem buntu direction générale des élections di xeex di xeex ak ay policiers ni administration dafa falsifier liste Dakar liste départementale de Dakar ci mu après ñu dégg ay Déthié Fall ak Saliou Sarr di rayante ku nekk daal sa moroom yaa ko def kon fen bu njëkk ci démarrage élection yi fenkat bu njëkk bi c'est Barthélemy Diaz himself ñu continuer beneen fen weesuwul. très rapidement maître. may ma tuuti rek. waaw ayca pour ñu mën avancer waaw maa ngi ñëw. nga daanelee foofu pour ñu mën avancer. maître maa ngi ñëw maa ngi ñëw. fii bi ñu bindee Moustapha Diop li ko tee à Louga Moustapha Diop a gagné Louga il va moo gagné Louga même bu ñu gagné bureau de vote parce que bureau de vote mën nga fa relatif Bamba Fall. élection locale yi Cheikh Tidiane Ba moo gagné woon ci bureau de vote mais moo gagné Cheikh Tidiane Ba Medina. alors may relever may relever que ñi gëmloo Sénégal yi ne intercoalition am na ñoom ñoo du wax dëgg ndax bu ñu proclamer résultat yi kenn du ne intercoalition moo gagné moo gagné tel département yey euh, wallu ñoo gagné tel département kon en résumé ah ñun on a dit la vérité Louga bi ñu ni dañ ko perdre ñoo ko gagné Mbour ñu ñoo gagné Mbour on l'a bien gagné on perdu Mbour ville Mbour Mbir on a perdu Guingox on a perdu Saly Ngaparou et Diass on a tout le reste que ça soit les alors Joal Thiadiaye Sandiara on a gagné toutes les autres communes. ci et milliers de voix la ñu ëppalee. dinañ ci ñëwaat kon élection yi ni ko gagné dafa rafet mais nag ñun. nekkuñu fi pour di sos di nax suñu bopp. alors département yi ci laay conclure moom dafa département yi am doole benn ay dix huit régions de Dakar am nañu dix huit. maître foofu ngay jeexalee s'il vous plaît. léegi ne la information que même Saint-Louis bi ñuy wax benn Dagadan qui fait partie de Saint-Louis dafa compenser largement. ah Saint-Louis. ok ba nga xam ne fàtte nañ sax Saint ñun ñàkk nañ ko sans compter Podor bu ñëwee moom kenn waxatul ko. Ah, vous l'avez mais on a perdu Ziguinchor on a perdu Saint-Louis on a perdu Dakar on a perdu Pikine on a perdu Guédiawaye mais ñun on reconnaît mais sur les 46. boo compter allahu akbar.